waa arbitre sifflé na arbit sifflé waat na sax laay wax si diggante ñaari mbër yi diggante Mamor ak Paul bu Daalu arbitre sifflé na xale yaa ngi léewtoo waat xam naa dañuy bàyyante xel ah buñ bërewul mo moins ñu xeex Mamor dox na ci kawam mais Paul reculé na mais boo xoolee instant boo xoolee xale yi dañoo jekk buñ bëree mu neex buñ xeexee mu neex xaw ma nag lu leen xiir ci lii xaw ma dañoo maaco kele xaw ma dañoo kelelee mais wax dëgg yàlla amateur yi seetlu wuñ ci ñoom lii ñu ngi leewatoo ñu ngi leewatoo Paul dox na ci kaw mais Mamor a ngi koy ah sama nijaay xale yi calcul ba bari na mbër bu ndaw da ngay bëre ku ci nekk ba nga jógee sa kër say mbokk waajal la di waajal ay weer di la waajal ay ay ay waajal ay fan ba bés bi tey xamu leen fu xale yi jëlee passé sat ñëw ba fii wax dëgg yàlla làmb dañoo war a bëre Paul jëlaat na Paul jëlaat na avertissement Mamor jëlaat na avertissement quatre avertissement ah seen xaalis commencé naa dem ah waaw waaw ah Mamor daw na jël ko daan na ko daan na ko Mamor daan na ko Mamor daan na ko Mamor daan na ko Mamor daan daan na pour bu daaru lamb jeex na Mamor félicitation mbër wax dëgg yàlla Mamor félicitation pour bu daaru deux minutes Paul bu daaru jugal Paul bu daaru jugal ku daanu doo dégg papa Paul bu daaru muñal d'accordul mais daanu na de daanu na de leer na nañ li jot a dem Mali sax am na de Paul nga ne d'accordul de. noonu Paul daa mel ne d'accordul de xarit daanu na de daanu na de Paul fu ñu jógee xoolal mbooloo mi yëpp ñoo ne indi si esaat bi barki Seydina Mohamed ñu ñëw bàyyi xoolal arbitre gis nga waaw mais ñu rek xoolaat suñu combat quoi daan yaa a ko poussé maa ko song maa ko daan mais dama respecté woon combat bi tey la ko bëggoon tamit xam rek. dama mën a dafa ma yëg si kaw teral sama yaay kii kër la ma dig kër barke Seydina Mouhamad terrain ma dig moo tax tey bi nii laa mënoon bëree gërëm père Modou Fall Ndiaye Brescia ak ñànku ak Vémas ak Khoudou Sow ak grand Zal Ndir ni nga bëree ak moom nga wax ko amateur. Père Mbaye Gueye sama papa daa feebar dañ ko war a faj. ni nga bëree moom kay. Mbaye Gueye Tigre de Fass may naa ko fi di waar may naa ko sama papa Mbaye Gueye Tigre fas Fass di gërëm waa Touba bu baax waa Italie Ahmed Lo sama mag. tey boole nga ci bool bu daaru foo jëm. grand combat laay bëri ku saf booy bu am doole bu saf rakk moo ànd bi barke sëñ Bamba ma ko daan bay wal man dama mën bëre sama yaram dama ko wàññi dama wàññi sama yaram ndigal bu baax la ndigal ndigal Malika xam nga kii kuy contact ak ay man la armée junior bu benn barak mbooloo mbo ntargano ngan kali ngan kali ala nin ka albidro a sifflé a kana tarak aye mane kii man Billy Junior laa tudd. waaw loolu wax si olof. xoolal Idi SBT Média mooy boobu xoolal leen ma keneen Fadal yaay bës xoolal leen ma keneen waay xoolal leen kii maa sama papa moo ma ko jënd. sow son la sow nag. la de ay di di nuyu xam nga dafa bambay ñoom xam nga ñoom jaas këroo xam nga di nuyu gars yi xam nga ku lim doo ma dal. mu ne aw ma ban jour leen wax man teel laa na tëgg na ko promoteur yi tëgg na ñi ko bëgg bëri na Fallou Ndiaye bëgg na ko Kanji bëgg na ko bu ñu xam nga ne man damay 500 billets dama koy jaay. yéen ñaar rek seen nañ ci xeex wala bëre. kii prison damaa jàngal bëre maa ngi koy général jàngal ma bëre armée jàngal ma xeex. nee nañ armée di du xeex xeex bi ne ci man armée ma ko jox idi man bu pare ay coup du ma daw ay coup de ay cri ay cri ama laa nekk ay cri ama laa nekk booy Pikine du daw booy Pikine du daw ala yaa ko koy kas ko koy kas waaw waaw waaw waaw xoolal li la wàcc waaw Jules Baldé ngi ni woo na moom ñëw at bi waat na leen Jules Baldé ngi wax moom Pape Diagne Seras a ngi noonu sànq gis naa Pape Diagne Seras ngi jox ay gauche Pape Diagne Seras a ngi jox ay gauche droite mais Pape Diagne Seras kañ la nekk course boxe mais daa mel ni Pape léegi course boxe la. léegi bàyyi na ménage. moo ma jaaxal de. mais Pape Diagne léegi boxeur la. Baye Balla Pape Diagne léegi boxeur la. ngi naan sax góor droite ah. ah. daan. daan. Modou. waaw Habib Ba wax ak Jules Baldé soo xoolee combat combat revanche la ndax soo xoolee Zil Balde bëre woon ak Boy Kayre Boy Kayre daan ko bëre woon Malaw Seras daan Malaw Seras soo xongi noonu ànd ak Alaaji moo tax combat revanche la combat bu doy waar la waaw ndax Boy Kayre dafa daanoon Zil Balde Dieng Kayre dafa daanoon Malaw Seras tey Jacob ñëw jël Mbañi Kayre kon toujours dañuy wax loo xam ne dañ kaa fekkee sama fekkee ba kenn lay laaj saan ñaari xale yaa ngi noonu oh ñaari xale yaa ngi noonu gis sama wet gi ma gis fi ku ñuy wax laay goote laay goote ngi noonu bàyyi ko Thiès nekk rak si Modou Anta nekk rak si nekk rak si turbo bu waaw xale yooyu ñooy bàyyeekoo Thiès xale yooyu ñooy bàyyeekoo Tivaouane xale yooyu ñooy bàyyeekoo Kër Male xale yooyu ñooy bàyyeekoo Kër Ndioba Minam Njaxate Kër Séga xale yaa ngi noonu kookoy laaj Pythagore le vainqueur de Daabu Texas ndeysaan ndeysaan Jacob Baldé at Mbagnick ndax la Baye Balla ndax Jules euh, Baldé Boy Kaïré da kaa daanoon Diène Kaïré daan Malo Seras kon tey Jacob daa ñëw war ñëw pour prouver pour wan la ko waa Jacob lii mooy lan waa Jacob xeetu léwtoo yi mooy lan Bala Jacob li muy léwtoo mooy lan Bala oh xale yaa ngi noonu daan xale yaa ngi wane seen bopp Jacob Baldé soxo ngi noonu di tongali xale Pikine baa ngi noonu di tongali oh xale Pikine baa ngi noonu di tongali xale yaa ngi noonu diggante Jacob diggante Jacob Baldé diggante diggante Jacob at Mbagnick nekk combat boo xam ne combat coordination la nekk ñaari xale yoo xam ne ñaari xale yu doy waar la nekk combat boo xam ne combat espoir la ndax dañ doon xaar si ñoom boobu boobu ba léegi gisaguñ ko ñu doon xaar ñoom xeex bu sax bëre bu neex waaye gisuñu ko xam nga komba bi combat revanche la. Balla Gaye jël la combat d'avance la combat d'avance la fu mu toll nii Zaka Balde dafa bëgg jeexal làmb ji par point waaw ndax ndax dafa Mbagnick dafa am moom moom moom ñaar ñaar waaye fu mu toll nii Mbagnick su ma doon moom dina cons ba làmb ji di waaj a jeex mu jëm ko jumloo si lu wér parce nii mel ni suñu taxawee nii bëréewuñu arbitre day siffler joxe leen avertissement te Mbagnick day ñàkk combat revanche la. man daa war a ñëw bëre. loolu mooy combat revanche la. waaw Jules Baldé dafa daanoon Boy Kaïré dafa daan Jules Baldé. daan Jules daan Malo Seras. Diène daan Malo Seras kon tey Sakab daa war a ñëw rectifier daan ki xam ne moom mooy Bathie Seras numéro 2 ci ci Pikine tey nag kon 3 la. 3 la. oh déggal ma loolu xale yi am na xam nga ne loolu gars yi bàyyi wuñ xel. ndeysaan oh jeex na lamb jeex na lamb ji jeex na Jacob jël na ko Jacob Jacob am na par avertissement victoire par avertissement victoire noo ko amee baax na